Cheikh ak njabootam ga weeru koor bul ko wuute Baay Cheikh ak njabootam ga weeru koor bul ko wuute yow Baay Cheikh ak njabootam ga weeru koor bul ko wuute yow Baay Cheikh ak njabootam ga weeru koor bul ko wuute yow di nga reetaan te jàng ca sukkaru koor wuute ko warul Baay Cheikh maanaam teel dara bi ma ñaanu ñu nii jàppal waaye yow teel lii ngay fu ñaaral waaye yow teel li bo de nga joxal mako sayay jappal yaay jàppal waaw kay chauffeur bi nak waxna ko li ma koy wax ba pare nee naa ko bul taxaw fenn am nga client bu deugar bop bu bari wax jappal fay naa ko place yop dalal wa damay dem te du ma yóbbaale daal lii. billaahi yow sa lépp dama ka pare arab teel.

ëmbal na ko de ëmbal na ko de mënuma wax kañ la nag waaye ëmbal na de. waaye yow man kay affaire bi jaaxal na ma loolu man xaasim gisatuma ko ci kër gi. moom xaasim paa bi dàq na ko. eh génne na ko ca biti. basu naa ci àq ba sonn dara nag waaye gis nga rakk mag nagoy boobu Omar. Hmm. Omar a gën a garaaw ñëpp ñëpp xam naa bu soobee yàlla. La ilahe illallah. Alhamdulillahi ya rabbil alamin. Ëtt bi sax wane na ni aram bakkan dem na. Bal leen ma ak. Bal leen ma ak. Bal la bal la. Aram bakkan dem na. Hmm. Ah. Yëpp naa ko ci oto. Hmm. Wax naa ak chauffeur ba ma ngay dem. su ne sant yàlla rek. ma ni yaa ko dugal ba ci biir oto. Ya, ya. waaw waaw waaw waaw waaw. maa ko dugal ni chauffeur bi taxaw fenn. dama rek. oto oh, bi daw na nga gis ko nii. ma maa tëj porte yaa ko tëj. maa ko rëngëj bu tëju. lii de mooy lii de lii de mooy fàng nag. moo arab kay fi mu ne yéen. Mm. rek. coono gi wax ji lépp wàcc na. est-ce que yow est-ce que yow gis nga oto bi dem lu sore sore sore ba nga xam ne yow aram Bakari ma ngay dem. baro man damaa tëx wala. Mm. aram maa ko ci dugal. na aram dem na ma aram dem. ngir mat moom. xanaa kay aram dem dem. gaaya maa ngi bëgg a woo waa dëkk ba sax. Mm-hmm. demal ca néeg ba am nga gan. Eh, eh, eh, am nga gan demal demal. amati na keneen ku may seet. waaw jërëjëf. gan gu rëy. jërëjëf man sax tur ci gan laay dëkk. Hmm? kontaan naa de. waaw kay di doon noo defe ne gisuma leen a gis maa leen doyuwul xam ne dañoo sis bay bëgg di seen jikkoy sis ji ñu yor faalewu ma leen sax kontewu ma leen sax man. maalinka nagis nuyuma leen sax waa aram aram lu la indi aram lu xew man pour man yëg nga ne nga leer waaye aram loo fi defati waaye aram bakkar sonal nga ma xam nga lu ma lay yëgal damaa ba oto ba tàkk rek laa réfléchir ma xam ne man waruma dem deng leen di la fi bàyyi pourquoi lolu fan nga ko ba ci lan la ah dematuma fenn fii laay toog tànk tank tànk mbagg ak mbagg fi lay korité fi mané korité fu la neex tabaskel fu la neex xam nga dafa sa kanam gu reuy gi jappani ni bi munutun ko koo aram bakkar yow mi yow lay waxal yow aram bakkar ku deugal bop nga la yow yow waxagoo sa soxla gis nga mer gàdd bi ma naan tëdd ci ci ba ma may bëgg a rey dootuma ci tëdd gis nga fii ma naan dëj fii laay tëdd yow waxagoo sa soxla yow. ah yokkati nga yokkati nga léegi si nga nu ci kaw lan a ca bokk a ca bokk gis nga yow. jabar goo ko yoree koy wax dëgg bal sa yërëm taw gi kii wax ko dëgg kii bu waxee rek nga xam ne def la moom waaye billahi doo fi fanaan di nga génn kër gi yow. gis nga yow gis nga yow tànk ruñ ko rukkuma la rek doo ma may jàmm ndax yaa ma gën a ci gaa yi. waaw ah, loolu bëgg. mais loolu laa bëgg damaa bëgg yow ñu daje ñu rukkante loolu laa bëgg yow. parce que sama diggante man ak yow fekk police amu ci yoon rek yow doo génn kër gi yow. du fi fanaan de. billaahi du fanaan. amal ful la nga gérer sa jabar mu génn kër. baax na du fi fanaan. ko warisi naa de. ah warisi nga. waaw ah man kon ci fu la neex. waaye nit ki mënatul ko bokk. bon may nelaw ba yaa njor nga naan la. yow gaawal la lan xoole kii doo ko tontu xanaa du sa <laughs> man mi da jigéen du ma yàq. waxul la torop li ma waay wax yëpp wax nga ko lan laay wax yem naa la ci oto demo moom xam na ci dara. Bintu. nit ku baax day am imaanu billaahi ragal yàlla Fat Bintou ci koor la nu nekk. waaye yow looy wax nii. ba déglu ma rek ton bi ñu jaay démb dafa forox te xam naa li tax mu forox ndox ndox maa ngay tëmb ca kaw toggoo ko huile j'adore defoo ci dawlin gisuma dawlin ci ton bi te ci koor la nu ne lu nu war a dugal ci biir dafa war a sell ragalal yàlla nit ku baax. day ragal yàlla fat bintu yow nag yaa yabaate te ñàkk xam sa bopp baro yow ku ñàkk xam sa bopp nga man jeeg bu doy ni man ma jëm mu doy ni man dinaa togg sama ton bii ta du am dawlin jadoor nga naan ndox maa ngay fur ca kaw yow yaa yabaate dafa forox ah, nelawunu ba bët set duus ba ku dugg jox sa morom ku dugg jox sa morom noonu ko jàppee ba bët set lu tax nelaw nelawu leen nag yéen a ko teg seen bopp seen néeg bu forox boobu fukki góor nekk caag benn jigéen moo tax mu forox lijjantil sa bir bobu lan motax moy daw yal na ku ñàkk am sa bop nga. dina ko population bi yepp la koy wax. ni le yaa ngi jëf ay ton di ci def ndox. do ko toggee ay wir jador dina ko wax nak man bu ko toggeewul woon wir ah. jador dina ko tek ci sama place bi. Ah. yow na xola yaa ngi bàkk njaag xam lu ma lay bëgg. Ah. dama bëgg nga dem. man njaag la soxla. njaag ci bopam la soxla. ndax ya def njaag. ah kon dang may may ma ñew waaw ñëwal ñëwal fa dem njaag dama bëgg nga dik fi nak kon nak dang may may ma ñëw. duñ yàgg nga bëgg. lâu yow lan lan nga wax lan lan lan yow lan nga wax yow lan nga wax